maître la moitié de victoire de verdict c'est une grande victoire On a voulu dénigrer l'état du Sénégal un grand état de droit on a voulu diaboliser l'état du droit et aujourd'hui la CEDEAO a montré que le Sénégal est un état de droit respectueux des droits de l'homme Citoyens, ça c'est pas moi de décider. la décision de Abuja, de la Cour de justice de la CEDAO, dit que Sonko ne peut pas participer donc aux élections parce qu'on ne doit pas le réinscrire. C'était la demande de Sonko. Et ensuite, il voulait que son parti le soit réhabilité. Donc, les demandes de Sonko, c'est un rejet défaite totale de toute la ligne pour Sonko voilà. da ngay dem waaw li ma mën a am mooy daal en tout cas Abuja la fa amoon ci dégg ngeen ko mooy Sonko dafa bëggoon ñu ne parti bi ñu dissoudre mooy bi ñu amatul mu amaat moom ci boppam mu bokkaat ci élection yi loolu yëpp gantal nañ ko kon bu ñu yemee foofu rek mooy Sonko warul bokk ci élection bu ñu yemee foofu mooy parti boobu mooy bañ a amatul. kon mbir bi leer na naññ tey Sonko dafa daanu nërmeeru nërmeeru boo metti fële ci Abuja état du Sénégal am ndam lu rëy ndax dañ jógoon pour yàq deru Sénégal nga xam ne mooy réew bi gën a am démocratie ci àddina bi am ñaari président ñu daaneel am assemblée boo xam ne genn wàll gi opposition la ñu ne réew moomu am du état de droit justice boo xam ne jox na keroog dëgg Ousmane Sonko ñu ne justice boobu Macky Sall moo ko moom xam nga loolu du dëgg mooy mujj tey wane nañ ni deru Sénégal yi ñu bëggoon a yàq ci Abuja sal nañ ko wicc raxas yi deru Sénégal ba mu weex tal gàcce nga la Sénégal Sénégal ca kanam. non Cour suprême ku nekk wax na li muy wax la amoon euh, Ziguinchor ñun d'accord ci ñoom ñoom nee nañ nañ dëggal loolu ñu ne nañ ko dindi la. kon boo demee ci yoon nga wax li la fii réew mi ku fi jaay doole kenn ëllëg mën nga ci rendre compte loolu moo tax ñun dañu yàgg gëm ni président Ousmane Sonko ni ñu koy jaayee doole dafa ëpp li ñuy jaay doole Ousmane Sonko mel ni du sénégalais dafa ëpp te ñi nga xam ne ñoo feeñ ci jaay doole bi dañu xam ne Ousmane Sonko xale la Ablaye Wade bi nit ñi doon wax ne mënta doon président de la république mu toog 26 ans moom Ablaye Wade ñu koy xeex ni ko doo mës a doon président de la république booba mii ko gën a nekk tey Abdoulaye Wade daa dem ba màggat nekk président de la République Ousmane Sonko il aura même quatre élections yi ñuy ñëw bu Ousmane Sonko desee ba kanam mën a nekk candidat kon ku ci ñaaw baye boo a def ndànk parce que ëllëg ku ci jël ay responsabilités yoo warut a jël le jour où yàlla subhaanahu wa taala ne Ousmane Sonko day nekk président de la République képp ku ci jël loo war te jël bu boobaa di nga ko kon nag tey li ñu fi andi mooy taxaw Ousmane Sonko parce que dañ koy jaay doole li nga xam ne moo am ci dëgg mooy ay tappalekat yoo xam ne ñoom ñoo comploté pour Ousmane Sonko du nekk candidat ñu dem génne ko injustement des listes tribunal bu Ziguinchor am compétence dem atte wax ne Ousmane Sonko nañ ko dugalaat ci liste ñu gis administration bu Sénégal taxaw ni du ko dugalaat ci liste te tegul ci deug parce que DAF ak direction générale des élections Tanor Thiendella Sidi Fall nek mel mom mom rewmi justice décidé ci Ziguinchor mu mune mom du dogal lolu parce que mom décision bobu arrangé wul état du Sénégal lolu moy wax légui nak ñun ñu ñëw